sortie du Sénégal, chose inhabituelle. Et donc, la présence de Bamba à l'AIBD est un aspect important qu'il faut valoriser. Bamba Sow, un quadragénaire très ambitieux, qui, au fil du temps, a développé une industrie créative de couture au Sénégal. chef Aïda chéri koko taamu naa bii diwli chef Aïda damay lekk di ci boole ndaw rabbi chef hider amul morom dafa neex set sell chef hider ñaam joodo dafay duma daan jël chef hider maay bay bi mën nga soos defal cere chef hider dégg naa ni docteur du ko tere chef hider maa ko ñam amul benn cholestérol chef Aïda oyof tollu te du metti sa xol chef Aïda ceebu jën bi tey lu tax mu gën a neex chef Aïda maa ngi door a xam lu tax mu gaaw a jeex chef Aïda looy xaar jëlal pool saaf ci fii chef Aïda tey si ngoon damay woo samay xarit chef Aïda chef Aïda. yaay chef ci is biir kër ak sa biir chef Aïda. Thank you. dafa neex. tey ku taam warga bi neex. paquet 25 grammes bi 125 francs rek lay jaar. kokan la ñu ne Assane Fall bu ñu nee global textile xel yépp dem ci Assane Fall boo dee wër tissu de qualité ci Assane Fall global textile lañ lay yabal maa la ko wax waajaa ko fu nekk lay dem ci àdduna bi mboolem fu tissu bu rafet nekk ci àdduna bi Assane Fall global textile daf koy jëli ciy Assane Fall ak bëgg lu baax ak leen bëggal lu baax xanaa gisu ne mu def global textile entièrement rénové dañu ko defaraat ba mu gën a baax place bi gën a yaatu tissu ya ñu daal di koy rañ sa ba gëna ordonné maa la ko wax taxaw ci place bi tu boo mënti yittewoo boo boko xolé gis ko xolal leen ma su brodé Assane Fall ay brodé de qualité la la wax dee gisal ma brodé Marie Guèye bi brodé la fa yaayaa ngook ay brodé pirxe amna amna, til sablé ah bazin yi wàcc nañu bazin riche Chérif Aïdara ma jesner yi su chantum yaa Ai ay voile amna, voile brodé voile asli voile simple tu suis soye soit Paris soit soit SS tu tissu soit qualité fil en petit global textile ay dentelle Amna Journal Vaxio Vax ay vax simple Amna Vax wax Vax wax njaxas global textile ay tube Amna tube design tube takk Yangok Tu tissu brocari Amna pour gore amitam pour jigéen global textile tissu de cérémonie Barri file am ay tissu perlage mon xam muy ceet wala tissu anniversaire sax Amna Gourni file ñi la fil yaa fil

C'est le roi incontestable des tissus de qualité. Fit du doigt Sénégal. Yamande. J'y vais. Moi que la naturelle. Put your time, mérite. Mon le nid bégué. Ta mon âme. J'y vais. Moi que la naturelle. Mon nini. Azabar. J'y vais. mon mara. I'm not gonna Belly, don' meilleur. J'y reste, mon gana naturel. man mi ma tegiloon jigéen ñëpp coono menace ak raxas léegi dama indi lu bees tàkk bokk si njabootu ren zomadaar lii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 dañ leen jàmm ci établissement takku liggéey commerçant bu mag bàngoog lépp lu jëm ci import export rawatina nag ay meuble yéen waa zak bu mbaaw sikap mbaaw Azur lépp lu ngeen daan jëggaani biir ndakaaru am na fii da ngay ñëw xool li nga bëgg ñu livrer la ko xam matériel électroménager wala salon salon yu mucc salon yi ngeen di wër ci àdduna bi yépp am ko ci qualité supérieure nak dañ lay jaay salon ba noppi jox la table jox la la moquette jox le pot de fleur matériel première qualité lañ lay jaay li nga bëgg rek la lay defal képp ko xamni tamit am nga salon bu màgget pare nañu pour nga ñëw dugal ko ñu jox la bu bess. Xana kay ñun ñoo bëgg ngeen am lu baax bu dé télé yi tamit Nonu. garantie dong la lay laaj livré le ko à domicile place bi mi ngi nekk ci point EDK bi ci hôpital bi villa numéro 923 jano ak mosquée vert blanc Woñu ci 78 012 84 75 wala 77 734 36 90 wala 76 902 84 75 établissement Takuligei Liggéey góorgóorlu et frère jaw et frère Yabach waa Srin Serigne Saliou Mbacké Srin Salih Serigne Saliou ak Balla Couture ou sax Balla Création mi ngi fi ci central bu en face garage Pekes lu jëm costume africain le prêt-à-porter mo ci jël pé yow mi solu rawatina sol gu mucc ayib contactel gaaw Balla Création ci en face garage Pekes numéro téléphone 77 643 36 58 Euh, ils étaient ma Voilà, ak maam. waaw Donc, euh, peu importe tu as une raison. Sonia plus plus di ko et on s'en on est dans le milieu du service. voilà tout ça et là c'est small size. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est parti. Robe, robe de soirée, robe cocktail. Comme vous pouvez le voir, billet. C'est un bon burger Sensei, robe mariage, robe cocktail, tout ce dont vous avez besoin, des cardigans, tout est là donc vous leen hésité ay être abordable la ñu am kër gi seen kër la bépp jigéen ak góor sax léegi laay wax bëgg a taaru sañ seen bopp baax doxantul seet si ñu au 78 534 64 64 ou bien au 78 535 95 95 donc voilà merci à tous et nous, euh, ngi dira. di xaar un nga showroom les étapes yu à deux, presque deux. saltige refo salma koor te it kam gen jaxaw siin kam ñaamaa saaj saaj fa ñaaw maarloo gis nga koy laax géej sa sankal dina yàqu te sab laax tooy gis nga yàlla mu moom géej moom sànqal moom laaxut géej ndii ma di laaj tey si suba ndax xam nga lu tax marietu mii ñaan la xaalis nga lank man mi waaw xam nga lu tax ah. ca xam daal mooy xawoon naa jànnaxe di hésité xel mi it meloon ne lu xaw a dem barki fapes keke wat ke awatanga im xon débat num na maago laa mbir mi def def la def dañoo téye sa loxo pour bu la kii laajee nga lank liggéey bu bon la. ñu liggéey ma man. waaw pour ma mën a génnee pour jox mareetu mii. waaw maar loolu am na. Ah! am na liggéey bu bon la. waaye balaa ma fee jóge barki faapes dinaa la wax ki def jëf ji gaaw xaay bis ku doon laajte faali ngooye ngi nii ngooy loolooy lan ana ngooy foo leen ko gis anam ah déet wax yow saltige loo bëgg a wax foofu mais noo toog gis nga ma du bàyyi mu ko paxu nopp di dugg si paxu bakket Mar man ma bañ may gunge keekeem la yaa wat ké bismillah dama né la waxtaan wii moom botoor mii desee bokk da koo Wow. a fekke ah, da koo war a waaw ok waay mais bala may génn kër gi dina la wax ku def jëf ji nu mu mel ki def jëf ji waaw ah. ndax lu ne fan kenn du ko jeex ki def jëf ji xamaguma tur bi waaye am naa ay tegtal si jëmm wax ñu rek ñu benn melo la maanaam xamoo luy nitu benn melo nitu benn melo day ñuul kukk mbaamu mu xees pecc waaw ku def jëf ji buum dafa am jëmm njool ci kaw ba noppi xes pecc alhamdulilahi rabbil comme daa xees man dama ñuul alhamdulilahi rabbil alamin lima lay wax nak bu deñe mbollem lu salti gay raxaso mako nan man koor ma gani ni dafa njool ba noppi xees xees pet waxuma xees de xees pecc dafa am taxaway te xees ko kat la wara do am taxaway te xees ci sama wujj yi de mais Alima njoolul torop est-ce que du moom déedéet noonu mënul nekk Alima Alima mi ngi doon ñaan sànq maar pour jënd robe maar bañ est-ce non mënul doon Alima Alima loolu bokkul ci ay affaire am Alima tubaab la moom du fréquenter sax ay sëriñ du moom Alima xamul loolu loolu kenn kenn rek moo ko fi bëgg fonk ko muy soxna ba dool jekk ma soupçonné ko naka jekk wóoluwuma ko ci mii wóoluma diggante moom ak maar hmm. maa ngi doo ko comprendre Issa dafa bëgg Mareetu génn moom mu dugg way sa mii est am na jëkkër di famu mo ko mare tum da jetti ko bisa mi bu demee amu jëkkër de waaw soxna xam naa ko xees ta njoor ki kan la isa isa rek la mënta doon keneen soxna wax nga dëgg de isa dafa xees te am taxawaay hmm, isa mii dafa bëgg nga génn moom mu dugg waaw moom lan moo tax mu taamu ma si ma parce que loolu man génneewu ma de ah man loolu laa mënta xam de tant plus sax nga man mari lan laa comprendre ba comprendre ko isa nan la ñëwé rek mar jox ko bopp ni lu mu wax rek mar gam ko def def ci la def li def def la am dégg mo ne am na jëkkër jëkkër parce que defo wu ko am di nga libre ni ah soxna isa de yow yaay lunkum ci kër gi yow loo ko xamalul man xamaluma ko xaaral ma dem laaj maar nan dem kay gis nga saltige bi. Hmm, ban saltige yow. saltige bi daan liggéeyal soxna Bato te mujj xaritoog mareetu. waaw ane de gis ko muy génn kër gi maar ko gunge. Hmm, fi doon def. maa xam mais li ma leer te leer mooy soxna Bato moo ko fi indiwaat. Hmm, complot la kon daal guerre mystique bi dafa tàmbaliwaat. est-ce tàmbaliwul ba pare. ah man waaye yàlla dafa def xaw ma ci loolu lenn. waaye nag ak ni ñu maarleree nii man ak yow ñu tudd duñu taas boole boolewuñ ci dara lii def def la soxna Batoor génnewu ma ko ci te nag il faut ma dem Koungheul foo ci lii du ma ni la déedéet waaye Koungheul moom xanaa après koor gi ngay dem koor gi ñëw na ba pare di eh, wax nga dëgg lii foo moo ko maar bi bëtam ci lii doy na waar man damaa tiit boo ko gisee. xees am taxawaay dëgg la Issa noon la mel waaye yéen ñaata nit ngeen gis ñu xees te am taxawaay ka nga xam leen walla ngeen ñàkk leen a xam seetkat yi nag dafa am lu ñu xewal boo ne nii ñu ne la gàtt ñul wala xees ñol te bu ngeen xolé sen environnement di ngeen ko fa gis ma bëgg leena xamal nak isa fami bu mu bok duñu def lolu duñu ko sax xala te ya xayti bu len fatini isa dafa am jëkër Ya gis jëkkëram yaw gisuma ko de hmm. waaye yaayam momako wax te yaayam lu mu ma wax ma gëm ko yow la mo tax yaay isa lu mu wax ma gëm ko ok tay nak dina len netali lo xamanteni xamante ni ko won pour mu leer sen bop bu yalla dogale may joge senegal di dem italy papay Maria mii moo ma daggal mu am sama benn mbokk bu ñuy wowe madjaw mu ne ma bo ñewé ba aéroport nak ma woo ma jël ci la yalla dogal ma ñew ba aéroport di ko woo mu fay téléphone may insisté mënuma ko jot yàlla xam na ni ñaari junni képp moo nekkoon sama poos ma jaaxle lool ma jël train wàcc Milano Centrale di xiin xiini xaw ma fu ma jëm xaw ma naka laay doxale ma taxaw ci digg yoon benn ndaw jege si ma ne ma yow xanaa senegale nga ma ne ko waaw sénégalais laa mu ne ma waaye li nga sol dafa oyof ak sedd bi xanaa yàggoo fi ma ne ko déet man de maa ngi doog a si waaye dafa am sama benn mbokk bu ma doon woo ma woo ko ba sonn jotuma ko mu ne ma kaañu dem ma ne ko dem ah, dem fan mu ne ma xanaa sama kër. yàlla dogal ma ànd ak moom dem ba këram fekk fa ay ndijaayu Issa ñu jàppale ma nag ba ma am liggéey jàppale ma ba ma am fu ma nekk gis nga Mariétu bis boobu ak jëf jooju yàlla rek laa koy sedde duma ko mës a fàtte gis nga kóllëre googu laay sàmm ba suñu jon yàllay tey ma bëgg nag bu leen accuser sans preuve bu leen ko accuser sans preuve wax ji nag bëgg naa ngeen ko mu yaa maa la woo waaw yow Simon dama la gis ngay wax ak saltige bi yéen ñaar dulu ngeen doon wax. lan laa doon wax ak moom danga ma gis may wax ak moom dafa mel ni numéro nga doon Simon je te préviens am na loo xam ne du ma la seetaan nga def sama mak, comme lan par exemple. comme di ko sëriñtu te Simon koo ëppali mbokk mënoo kaa jëw bii ge bul fàtte man xaw ma sëriñ yéen a xam sëriñtu Simon prévenir naa la loolu rek laa lay wax c'est bu la neexee nga jàppee ko menace war na la say jaaro war na la nga mel ni tigadege Mareto damay bañ la nga foog ni dama delluwaat ci li ma nekkoon soxna man xalaatuma dara duma la àtte si li nga may dama lay àtte si li def te lii yow yaa ko def man ma teg si bëgguma wax ci jëm kaw ndax bis bu jëmee kaw dina fi indi yeneen wax mais bu la dalati keroog ba mu ise ne naa fanaan man kese laa njortoon ni yow soxna di nga dem fekk ci màtt ay woon Fanta Seydi mi ay woon bis bu yëgee lee dafay indi yeneen wax moo tax rek ma wax la ko man Fanta Seydi dama ko faale man Fanta Seydi moom bu desee ci wax ji moom kese man faalew ma ko ndax bu dee moom rek di jëntiw ma ko bu desoon ci man ak moom kese dañuy ba suba ci digg kër gi dama kër fanta say demaan waaye Marie man yow laay biñ ne jàppee mu wujj bareetu man dootuma wujjeeg yow ci àdduna baax na bàyyi ma jàpp li nga wax bu gis leneen yàlla xam na leneen dootul am dootuma def leneen. woo yow Codou bi ma gis muy dugg si bi du du saltige bi. Ah, loolu de laa dégg. moom loolu la fi def. ah waxuñu lu mu def de mais daal maa ngi leen di gis ku nekk di ngurumtu ku taxaw fii wax kee dem fee wax diggante soxna Batoor la dak ak Mariétu. c'est affaire. affaire affaire affaireu ñepp la affaire domestique fu mu dugg da koy jaxassé xama lan la waxal ak soxna Batoor ni yeddu ko mom dong mo fi ñëmé ni mystique ci kër gi. lu mu koy yedd. lu ba do koy yedd sa doomu la di sa jabar di sa jigen du dem fii ya ko don défendre solo ko mbuba avocat woko nga wax ak mom keur gaangi wacc ku nekk nga wax Fanta Seri lan la dama la soxlo soxla jam est-ce que mon naa toga marsal maar bi lan la doon def ci keur gi lan bu doon def ci keur gi moy lan loolu mooy waxi la damay bañ ko ma bett damay sëy ci kër gi gis mystique kat bu bon dugg ci kër gi ñu dalal ko ci saal bi boroom kër gi dalal ko ma bëggoon xam li ma wóor ba wóor mooy seetu la yow kon nag Fanta waroon nga cee maandu seetu ma man de mais damaa bëgg xam lan la fi def bu dee man rek bu dee man rek Fanta doo xam te bu lolu mo la taxone ñew mën nga dellu jogal nga dem Alla wow kon yaangi fi mo ngi fi so ça va bien Oh, yo de du ma laa soxla woon soxla waaw. baa jàmm lu xewati. jomm lu koy. dégg naa yoo fi indi. dégguma sax du ma gis waaye na code tamit am na lu ma wax mais mooy ko fi indi. Hmm. yàlla xam na dama weex dunku rek mais kooku léegi xaritu mareetu la mareetu la doon seet seetu ma mareetoo ko fi indi woon. mu xam nga yow dafa am ñu la bokkee. buñ xam nga kër gi yëpp nee nañu yow da nga ñëme mystique waxal rek ni maa feeñ le da nga naan man soxna ba tóorloo maa feeñ le waaye Sénégal bu ñu le est ce que amati na benn jigéen rek bu dul dem ci sëriñ laaj naa la ko man kan suma jobo sa lal fi ngay tëdd sa guddi fi ngay njëge naa dafa teg sa bopp mas nga ko yëkkati. Mm-hmm. demal yëkkati ko gis nga boo ko yëkkatee di nga xam li ma lay wax dinga fa fekk nag fas bu rëy bu ngant boo ko yëkkatee ba pare nga fi ngay tëdd sa guddi fi ngay ñege naayoo dafa teg sa bopp masoo ko yëkkati mm-hmm. demal yëkkati ko gis nga boo ko yëkkati di nga xam li ma lay wax eh lii du waxu xale lii yëfu baatin la dama nga wol ma maan. waaw ñëwul xaar ko ci biir saal bi ma may la ndox. man maa la wax damaa mar danga ko dégg yow. nga bëgg ci lan. xamoo lu mu bëgg. Ah, déedéet ndax waxagoo. xanaa bu fase ko ndax mu génn si kaso bi loolu laa bëgg. xaw ma kan de waaye ngóone ñaanul baat tey te ñaanul baat suba. Eh damaa bëgg nag mu leer. yow maa est xam nga baatin. soxna si gis nga man baatin ak zaahir laa yemale. ñaanul baat tey te ñaanul baat suba. waaw wool ma ngoone bu ñëwee ba taxaw fii dina dégg bu baax li ma ko wax. ngoone bu ma fekk see kii taxul mu ñaan baat ndax man may kilifaam li ma ko wax lay def. <laughs> du ko def mukk. defe naa xamoo baatin yow yow da ngay fo ba léegi. soxna si yow est-ce que doo ma dimbaleeg mbiru baatin baatin laa bëggut dégg sama biir kër gii fa nag. chef jaay la bul njëg gi yomb ba do waxale ndimbal njabot jaay montel la ko sagale su bu gilu nay capirouge demal seti capirouge ar armoire yu nay capirouge lal ak setu yo lo fa jënd njëg bu yomb lañ lay jaay ndax njëg gi yomb dem ba melni dañ koy capirouge am na tapis rouge am na tapis rouge Mbuur géej am na tapis rouge yes gaay am na tapis rouge am na tapis rouge jaay la ma bul njëg gi yomb ba doo ndimbal njabot jay la montel la ko sa gaale su bëggee nay demal seti armoire yu lal ak setu jay la meuble njëg gi yombo ba do waxale ndimbal njabot jay la montel la ko sa gaale su bëggee nay jay la meuble njëg gi yombo ba do waxale ndimbal njaboot jaay la montel la ko sagale su bëggee demal seeti armoire yu naay lal ak seetu yooloo fa jënd njëg bu yomb lañ lay jaaye ndax njëg yomb mel ni dañ koy maaye nama chikenye Sosho jaresto Resta si so misfi Resta si so gina waral la noonu. xam nga dama ne ko du ngeen ñëwee sëriñ sëriñoo sëriñ ngeen dem fa mu ne ma sa soxna si boppam moo ma dàq sëriñ. man mii yow danga maa mës a gis may sag sangoo saafara danga maa mës a gis may dem ci sëriñ day fan moom moomu moo mystique moom moomu moo ñeme sëriñ waaye nag olof njaay nee picc bu lakk ci taat day bëgg moroom man soxna ba to duma moromam yo saga loy def fi xana and ak sama mak man woowul ma la di oh mama wo sama bop saga toga ngóone ci seetkat balaa jóge léegi li ma wax na mooy sa biddéew ak Lamine àndul xam nga nag lu ma bëgg bu la Lamine wooyee nga ñaan ko baat ndax mu génn ci kaso bee ndax xam naa ne yow moom kaso bee mu toog arrangé wala ndax bëggoo loolu te baatin la nag baatin la de eh ñaanul baat waxoo ak man maa wax ak yow ñaanul baat tey ñaanu baat suba ñaanu ko ëllëg eh sa doom la boo ko ne ko mu fase ko Lamine gor la hmm. Lamine du ko mës ko may baat ndax gor la moo tax nag ma bëgg moom mii ñaan ko baat te baatin la nag seetkat borom ma ko wax te kooku lu mu mës wax teg naa ci sama bët nga jël sa doom def ko gor ñun nga def ñu ay jaam yow meer ku gàtt xel nga te gis nga bu doon man ak yow kese coow li jeex na bu yàgg. Hmm. sagar doy na adada. Eh. yaay baax na demal. Eh. dinaa la woo. demal bi dafa gàtt ma naa ci ngeen jëkkër sama doom bi la ma. yow demal nga mel ni añu nday nii. yow Alima nga ne loolu la leen maar waaw. tontu bu ñàkk kersa ne ci ñun suñu yoon nekku ci mais Marie ñun suñu yoon mu ngi ci bataille mystique bii ci kër gi bu tàmbalee man maa ci njëkk a dee ndax man sanguwuma naanuma dew ma ci sëriñ dalal leen seen xel saltige man mii la doon seet xam nga léegi sama wóllëre la hmm. la la doon doye ah Alima wax dëgg nag mënuma la koo wax loolu sama diggante la maag moom. mais soxna yëg na ko te dégg naa soxna Batoor mu ngi woon ci saal bi. dëgg la mais Alima soxna Batoor moo tax ma xam ko nag. de toute façon daal soxna Batoor moom jaxase na xel waa kër gi yépp. man yàqu di man Ndiogou def est que mën nga moo déposé fi déposé sa taxi sur moom bi moo ko jël sur fee jëm soriwul loolu soriwul fii si kanam rek damay ragal génn fii nga sori maar génn soxla ma de. du yokk njóg. ah du du yokk. yëkkati nga boo ko yëkkatee xam li di nga fa fekk gisoo àll àll dafa mel ni ma ko xemte muy wàcc escalier lan la dafa dem te tàggoo la xanaa de ngeen réeroo. kon dem na ma mareetu man lii fan laa koy waxee. lan moo xew. ay man sama sab dina sàggeeku. oui kay ci biir ñu waxtaan. Ya lan ya ya tu déedéet du yàqu naa. non non defal ndànk. lan moo xew yàqu naa sama sëy yàqu na. déedéet lan moo xew Kodou. Mariette keroog dama demoon ci benn sëriñ pour mu defaral ma loo ndax gis nga li xew Marlo liko dal ak ay jabaram ñaanuma yàlla mu dal ma ma ne woon naa ñekk sama sëy paa bi jox ma benn fas pour ma def ko fi àll di tëdd mais man soxna Batoor laa xamul nan la def ba yëg ko mu dem wax ko àll àll gis na fas bi génn na kër gi àll mer na de àll damay fase yow xam nga sama digënté man ak Allah dina wax ak mom mais dama lay ñaan rek dalal bul xawi sa sutura andal ak sa sago yow kan mo la wax ni soxna bu tol moko wax Allah mo mako wax Allah neena soxna la soxna bu tol tamit soxna kañ lay mandu waa Badja lan ngay reetaan ana Biige lu mu wax Biige de daf ma menacé ouvertement nee na bis bu ma demee ci saltige bi daf may boole xanaa Biige lu mu yëg lay boole Simon Penda dugal sa bopp gis nga réew mi ñu ne ku def am ku yàlla suturaal rek moo fi am gis nga nag boo toogee sàggan ba sa jëkkër ji bareen jigéen jaaree ci biir wala mu jaaree feneen nangu ko sa problème la man nag wax rek laa mën boo jëfee baax na boo jëfewul baax na waaye réew mi hmm, ku dul def gisuma ko fi de ku yàlla suturaal rek moo koy am gis nga téeméeri jigéen yoo jël quatre-vingt-dix yëpp ay dem ci sëriñ téeméeri góor joojal jël quatre-vingt-dix yëpp am nañ seen ay jumukaay defal li ngay def ci sutura bu ñëpp teewee nga wetti ba mu set boo weetee yow kese nga def li dal sa xel foofu la réew mi toll mais du leneen ubbi sa xel bii dafa ni yaa ngi ci ay xalaat yu metti de. Sala sa bi dafa tëju ni mu tëjoo sax xamoo ko. waa kaay wuy maar. maar animu. mu ci saalam bi. xam naa la ndax li la destabilisé dafay yomb dama bëgg nga dalal sa xel mi dafa am nag lu xew Sénégal te muy ay caaxaan yu doy waar benn waay day reer ba suur sëy ak soxnaam nelaw gént yeewu na géntam dañ ko war a jëfe te lenn rek lañ ko mën a justifier muy baatin la sëy nag dañ koy takk ca aras man nag li yàlla wax laa gëm sëy ñu ngi koy takk ca aras kon ay waxi seetkat du ma tax a takk du ma tax a tas duma tax def leneen sa sëy bi nag du ay gént du ay fo du ay caaxaan te ñun duñu maye kuy gaaw a tas duñu maye koo xamante ni su mettee rek mu daw mais toogal Lamine moment bii la la gën a soxla xamoo nag yaayam lan la fa wax toogal nga déglu ko bu yàlla dogalee nag mu may la baat ñu xam ni lii la yàlla dogal waye ngone bul mës taxaw ak lamin diko ñaan baat gëmal yalla te nga doy loko mar man dama sonn maar mënatuma son na ngone billaay sonn naa jox gëmal yàlla te xamni lepp dina mës bax waxtaan. waaw yow loolu moom daal yow sànq di waxtaan waxtaan bu gën a sérieux bii léegi yow lan ngay retaan. Ah, wax ma lan nga bëgg. munoo bàyyi su ma ñëwee di la wax sama fula nga foog ne ko xaalis laa lay doyee dama ñëw di ñaan si. ah mais man loolu ma koo tàmm ci yow waa léegi waxal maa lay dégg. lan moo tax doo sangu. sangu. maa du saafara. waaw. mais man yooyu moom gëmuma ko xamul tax su amoon effet kon Sénégal mooy raw ci réew yi nekk ci àdduna bi yëpp. gëmuma ko mooy waxi lan yow président yi sax ñoo gën a mystique. nga ne gëmuma ko. waa léegi bay du man maa ngi nii defuma ko lan la ma wàññi wàññiwuma dara. yi nga foog du ay def-def. kan moom koy def. sa concurrent yi xanaa sa concurrent nekk fii senegal bay génnal ci yooyu man nekkuma ci yooyu quoi. léegi bail man dina la wutal ñaan. jamais jamais bul dugg sax ci affaire yooyu. et je te l'interdis formellement tu sais mais xanaa xamoo loolu baaxul quoi day yàq confiance entre jëkkër ak jabar dara na la ko nag est-ce que dégg wallaahi li may wax laay bañ maa dégg kon xam na ni si def ma def soxna yow lan nga wax àll man man lu ma wax ak la ngeen may tooñ bàyyi leen lu xew ci kër gi ngeen féetalee moo ko soxna Batoor la soxna yow waxoo àll ne code dafay mystique ah. <laughs> bareetu loolu wax ak tontu la ci àll moo ne ma koddu nee na yàgg na musique ci kër gi ma ne ko ak moom ma ne àll boo demee sa néeg fa ngay tëdd fi ngay teg sa bopp di ko njëkkee naa yow boo ko yëkkatee di nga fa fekk téere Marie waa téere di ah waxuma la de hmm. moo ma sànni xeer de koddu moom moo ma sànni xeer ma fayu moom wax lu ma fayu waye nak ku dee ak sa bàmmeel yalla xamna ni man Codou xamalu ma ko dara xamalu ma ko dara nak dañ ci am problème ñom ñaar waaw am nañ ci problème de soxna ah man dama won kaf rek de am ci problème de dama ka kaf de sama yow jërëjëf. jeex Koddo ak Anna moom lan lañ la la lañ xewle si lan. ah dama leen a déggul bi te ñoom ñooy animé kër gi. xewle ñu dara dañoo lalu rek di dund seen intimité ak seen doom. ñoom ñaar ñu dañ compagnie ñu nelaw guddi asama sieste. waaw wuy ma dama jëlee la maman Anta ma foog moom sama xol feex. moo ne ngay bàyyi di ma yónnee man dama sama morom de dégg voilà nag doo sama morom sama rakk nga dama jëlee ko waaye dama stressé. cho ngày đại a của mình cái ba du wax ci tax nga mer gedd ni kon moo mare tu mareetu ko do deful dara de dama ko doon sànni xer rek bi ma waxe ne ma duna da nga mystique cela ko doon sànni xer na lan ko du moma gëna mystique bu deug rek man ko duma solo bu tor xamul ko dara hmm. wax ji nak waxu rek bu ko japp waaw damay bañ ngeen coow maa dal sama kaw yow yaa gën a xam ne man maa gën a weex dunq damay bañ naa man maa jaxase kër gi àlla koddu man xamaluma ko dara dëgg rek a neex yàlla xamaluma ko dara. bon. Marietou nee na mu ci néegam yow lay xaar wuyu si ala fan nga nekk. du ma génn. waa si. àll koddu jigéen la suturaal ko fi mu nekk nii tiit na te ruus na bu dee nit la rek lii dootu ko dalati si kër àddinaam te àll bul fàtte ne kër gii doonatuma fi jabar yaay laa fi te xolu yaay laay waxee bul ko ci wax dara bul noppi bi rek moo koy yar àll soxna Bato day tàndu rek amu ci dara lu ko leer te àll bul fàtte ni yow ak Codé da ngeen am doom te doom bu jigéen surtout lii nii boo si waxee bu mu siiw tey di nga may sa doom woy bu dul fay ëllëg lan la. foo nekkoon. soriwul moom maa ngi woon daal côté rek. lan la. Doro. Doro mu tëdd woon. Hmm? pour yow maa anta sa yaay la yow kese. Sagar jox ma tey ko waaye s'il te plaît. dama ko noonu maa bañ maa anta. eh boo fi daanelee doomu àll ji di nga xam ne lépp dëgg la waay yow. maa bañ waaw jox ma ko dama koy dem jëndali yow wóor. maa bañ daaneel ko nga seet. Sagar yow mënoo sax tey xale xoolal kii ni nga ko téye mooy lang. di nga ko gaañ indil. maa bañ joxuma la ko. jox ma ko wala ma ko papaam. moom papaam day sangu boole. léegi nga ko bàjjee na ma abal la. waxal waa ba pare. ba Anta. <laughs> am nga sax waaw yow bon na bëggu la. man e la bëgg man e. la bëgg. nee ko déedéet nee ko non non non. dama lay jëndal soow. ñëw soow waaw. soow chérie demee nga waxee ma sa yaay ne ko dama doon xaar rek koor gi jàll su ko defee mu mën a ñu waxtaan si. d'accord incha allah comme koor gi jàll na dinaa ñu waxtaan si ndax ñu mën a takk dégg nga. incha allah dina ko dégg. ah loolu moom yaay boo ko defee moom di nga def lu baax. ndax xam naa ne moom koor du yàqam dina ko te man it yàqam dina ko. xam nga léegi nag yaay nag kilifa na moom ah waaw waaw. te kon moo wax yàlla jox ma la moom macha allah. <laughs> allah. allah Allah. Allah. Allah. Tu Doğru. toll ngeen ci vingt six yéen ñi abonné wu ci suñu plateforme OZ Stream ñoo ngi leen si sant bu baax continuer leen di seetaan seen série préférée yi ci OZ Stream bu leen fàtte mettre à jour application bi ngir am fonctionnalité yu bees yi